yàlla lañ yàlla lañ leen di bàyyi. Cheikh Aboubacar moom. depuis boobu ba léegi noppaloo muy Cheikh bakk bu kabbaroo yaakaar naa yéen ñëpp yéen a déglu ay déclaration sëñ Moustapha Mbacke mi nga xam ne moom lañu ñu sëñ Mountakha Mbacke mii booleel. ci Ligue des imams. yaakaar naa mu njëkk def déclaration keroog ci seen seen seen seen seen presse bi. seen presse bi laa ko. yal na ko yàlla Saliou moom dañ ñàkk beral tudd ko na ko borom bi tabaraka wa taala yéegee aljanna yi gën a kaw alhamdulilahi rabbil alamin défenseur la woon ci dëgg ba ñibbi ci dëgg Sidy Lamine Niass moom démb dama dem ba ba kowal ko jë ndax moom mbir mi de ko def ko defoon moom mi mbiru boppam mag la ci ñun di wóllëre ci ñun hmm. bàyyam ak sunu baay nii lañ defoon hmm. wax naa ko ne ko sàmm nga ko yal na yàlla sàmmal ñu ko ci gàttal sàmmal ñu ko li fa diine yëpp sàmmal ñu ndaw yi diine yëpp mbir mi li ci ndaw ñi dox ñemewu wax ne moo ëpp li ci mag ñi dox ndax Sénégal ba Sénégal de saa yoo xoolee ci biir tribunal bi dañ koy fees wër ko ci biti wax naa wax toog leen waaye nag ci lan euh, suñu toppoon mbirum yu ndaw topp ko topp ko ba ca mujj ga ñu ne doon wax dëgg la mbooleem ñi ñi doon défendre dëgg danañ am te réew mi yëpp dugg dëgg kon ñu ngi santaat borom bi tabaraka wa taala ci ni mu leerale dëgg yaakaar naa neen moom noppi na ah, gannaaw loolu ñu bàyyiloo waat xel nit ñi information yaakaar naa li li ñu wax ci man bëri na. Mhm. li ñuy wax ci man bëri na. Mhm. te am na ca loo xam ne kenn xamul fi ko jëlee. Mhm. moo tax saa yu ñuy jël déggatee information. nañ ko segg xoolaat ko. bañ a gaawantu. bañ a gaaw a àtte. bu dee presse bi nag ñoom mën nañ jàllale. waaye buñ pare yi nag bu mu leen tee topp nag. di segg ka seggaat. ndax information ni muy ñëwee léegoo léegi mën na doon dëgg. mën na ñàkk doon dëgg. te yéen ñoom nañ leen ko joxee rek noonu ngeen ko a diffuser hmm. amu leen droit soppi ca leen hmm. amu leen droit def ca leen